ñu ngi ziar ñëpp ku ci nekk turam ak santam di ñaan yàlla laay bi fekk ñëpp ci jàmm bu ñuy gisewaat mu doon ci jàmm ci barke Sëriñ fàllu Mbacké di ñaanal ñëpp weeru koor gi ñu dugg mu bañ a nekk weeru weeru koor gu mujj ci ñun bokk ci weer yi nga xamante ne liñ ciy def yàlla dina ko multiplier comme ni mu ko tàmmee def ci weer bi nga xamante ne weer bu sell la di ñaan ñëpp ñu dugg ci ci jàmm génn ci ci jàmm incha allah di ñaana tamit sunu mbokk chrétiens yi nga xamante ne at yi yëpp yàlla ngi wane boppam di dajale kooru chrétiens yi ak kooru musulman yi ñuy bokk muy wane lépp ne gëm yàlla dafa am importance religion révélée révélée yi fa nu nekkoon lan nekk ba tey ñi nga xamante ne gëm nañ leen ñu ngi ci continuer ci ci bay seen waar di wax ne que ni lii rek moom moo war a tax ñu gën a uni gën a indivisible delluwaat place ba ñu nekkoon mu am ñu koy jéem a yàq mais taxul taxul taxul mu yàqu mais war nañ ko rehaussewaat ba delluwaat place ba ñu nekkoon muy maanaam nekk ci exemple ci monde bi yëpp exemple ci situation politique exemple ci situation religieuse exemple tamit bi nu nekk nii teg ci ay commencé nekk exemple ci situation économique ci Afrique de l'Ouest ba ci Afrique bi yëpp di wax ne tey live bi xam naa dañuy fexe vidéo yi gën a bëri mais balaa ñuy dugg ci live de dañuy féliciter Lions yi di encourager parce que encouragement yi pour andiwaat coupe bi la félicitations yi ci match tay bi la di wax ne à nous sax ñu jógoon ba ne dañuy dem pour yàq match bi yàq match bi mooy équipe nationale vert jaune rouge moi, am ay milliardaire, am ay millionnaire, ñu bàyyi seen club bàyyi loo xamante ne si la ñuy ñaqee di jariñ ji jox seen njaboot ba ci dimmale sax askan ba ñu dëkk ku ci mel ne Sadio maane mi ngi koy def ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne topp benn wëndëng bëgg dem yàq match boo xamante ne drapeau bi la ñuy représenté am na sax ñu ne woon dañuy dem yóbbu drapeau russi foofu ci stade bi yooxu première mi-temps bi ay Macky Sall dictateur deuxième mi yoo ñu yooxu Ousmane Sonko trois bu amee temps mort ñu ne xaw ma non au troisième mandat football sport la dëkk sax dañuy guerre war a dajee ci match dañuy football ku nekk dellu Israël day dajeek ay équipe yoo xamante ne nangu bokkuñu ñoom xalaat ay propre sénégalais ne ay patriotes lañ ne loolu lañ bëggoon tëg pour dem yàq tey pour wax leen ñii fi seen degré toll dañu dem ba fàtte ne Sénégal moom ñun ñëpp Sénégal mooy li nga xamante ne moom ñoo ko bokk te mënuñu koo séddoo mais dem ci stade pour yooxu kan koo xamante ne ngeen ne match bi international dañ koy seetaan koo xamante ne il est internationalement reconnu que ni li mu def Sénégal kenn ko ngeen bëggoon dem yooxu dugg ci terre bi mu créé dem ci stade bi mu créé te yéen ngeen du priorité ngeen dem yuuxu fa turu kan koo xamante ne il est internationalement reconnu comme un menteur comme un violeur parce que ku ragal def test ADN ci dëkk ci monde bi yëpp déjà tu es considéré comme coupable koo xamante ne ay africain ay bopp ay kàngam ñoo taxaw ne fen rek lay def astafurlah sos rek lay def ngeen bëggoon dem yuuxu ji kooku foofu nuyowuñ sax ñu ngi jéggalu ñu ngi jéggalu parce que dañuy bañ di nuyoo di perte temps te xaw na guddi Ami Aminata ñu ngi lay ñu ngi lay ziar Abdoulaye Sow Moussa Sen ñu ngi leen di ziar Marie Hélène ñu ngi ziar ñëpp Yaajëf Cheikhou Diabaté Aji Gueye ñu ngi ziar ñëpp Daouda Ndione Ibrahima Pouy ñu ngi ziar ñëpp Diop Maymoun ñu ngi ziar ñëpp ñu ngi ziar ñëpp di jéggalu ci ñu ñu liimul di leen wax ne li gën a neex ci live bi moom mooy que ni dafa am koo xamante ne tey chaque jour saa yu génne rek

sinon day goudi trop parce que gars yi li wax dafa ba nga bu ñu wax bon ñu jël ni rek vidéo bon alors. li stratégie de la peur li stratégie de la peur mooy fexe ba xoqatal nit ñi ba kenn dootul ñeme ñaari at yëpp loolu la bu ñu nee dara rek lu am police. teg ko ci rond-point yëpp pour Sénégalais yi teg seen bët bu ko defee ñëpp tiit ne ah fii de ko fi yéen kutu njaaxum am xoolal li mu yor ci ay dragon xoolal li mu yor ci ay char de combat xoolal li ci ay alkaati waaye li xew diggante semaine passée ak tey wone na ni ndekete Macky Sall yorul dara ndax askan du du du hasard bu constitution ne kattan ak doole ak sañ-sañ. askan bi rek ko yor Sonko nee li mu yor yëpp ci alkaati li Macky Sall yor yëpp ci alkaati Macky Sall yorul alkaati état du Sénégal moo yor ay alkaati foofu dañ koy arrêté taxaw ne li mu yor yëpp ci alkaati yëpp ay jeunes lañ kon emploi des emploi des sénégalais mi ngi ci Ousmane Sonko moo waxoon ne chômage rek am ci dëkk bi fii moo contribuer boppam mu ne souveraineté.

moy ni def bu nit ñi ragal xam nañ ni amuñu moyen pour contenir ay manifestations de masse yoo xam ne day day day day lalu ci ci temps bi moo tax ñu ne léegi nañu def li ñuy wax des arrestations préventives mooy nañu fexe ba jàpp ñu bëri ci gars yi rawatina ñu ñu yaakaar ni am nañu yenn responsabilité yi mooy arrestation ciblée yi ñu nekkee loolu mooy deuxième phase stratégie de la peur bu ko defee kenn ku nekk ni ah wóorul est-ce que duñ ma jàpp est-ce que est-ce que est mbokk yi ragal ci yëpp yàlla la bokk nit ku nekk li yàlla bind sew su àpp bi jotee dina am bakkan gi yàlla dénkuñu bu nee bés sàngam la bës boobu lay doon mun na la fekk sa kaw lal nga tëdd nelaw comme mun na la set nekk fekk ci circulation bi ngay dox bu dee lii ñuy xeex gëm nañ ko gëm ni jaamu yalla ndax amul lu wessu lu gëna kawé ci jaamu yalla xex ngir saw askan bax lolu amul lu wara fess fees suñu bon ñaan ñi ngi tipp wala ñi ngi ragal fatali ko toujours ñi nga xam ne ñi ngi won suñu wet di xeex da tey nekkatuñu fi da Macky Sall mo dal seen kaw kon ñun amuñu droit deltu gannaaw li muy def yépp nag alors Ousmane Sonko nee bes app bu joté ñi mu doon xéxal ñi nekk ci wétam mais mom lan lay wut fi lan lay wut ci clinique bi wala lan lay wut ci hôtel 3 étoiles bi parce que nee nan ñuko laaj nañ docteur ñaa mu né deful ko benn soin kon Ousmane Sonko lan lay wut fi lu tax demul ci wétu ñi doon ñi doon bëgg dé ak ñi dé ku bind sa testament talal say sa loxo say yaay mu ñaanal la sa yaay mu mëna pause mu ñaanal la nga xam yow bo démé do ñëwaat mais waro dem clinique faju bay expliquer banan damay porte plainte ak ay dan ma empoisonné te lepp nga tek ko ci ay sauce sauce yi sax nañ ko tégué né ñu wax rek ku dem bind sa testament né xex gat sa gat sa nga wax ñetti fan gaay door ñetti fan yo xamantene yow da nga dem mujj teud ci clinique bi di relax duñu wax sax ay perfusion ay li parce que dafa terre à terre man ñi xam xam nañ né liggéey na ci cabinet médical lii dafa dafa terre à terre sax pour wax ci parce que temps perdu la parce que ñu ñu perfuser la ngay yëkëti sa loxo di yëkëti sa loxo di yëkëti sa loxo buñ la perfuser won sax dérèt bi day commencer ki waxtu nu liquide bi té ñom liquide biñ fa sample liquide vitamine la bo démon ba ci recherche yi Canada dañ la koy défal légui néna amul médecin amul benn effet bu mu lay def lu may la vitamine mi ngi melni rek ngay lek ay fruits wala nga dem jindi ci pharmacie bi vitamine diko nan bu la dara jotul nga sentir bëgg yëngalaat sa yaram rek wala nga bëgg démar ay def comme yi nga daan def ci salon de massage kon du ñu taxaw ci aspect sanitaire parce que aspect sanitaire bi existé wul depuis le premier jour la ko wax aspect sanitaire bi existé wul daaw wax nañ ne Ousmane Sonko malade imaginaire la mënul nek lenen mais nak fièvre na feebaru xel parce que Ousmane Sonko ku tok diko ko buy discours même terme il est utiliser Macky Sall Macky Sall Macky Sall xex xex xex mais du xex faut bu tàngee mu dugg ci autopolice police bi daw gaay yi daal di koy tiak tiak yooyu la ñu gis ci Ousmane Sonko gisaguñu dara ci Ousmane Sonko lu concret lu palpable may wax ne yokkaat na waxaat na yeneen trois jours quatre jours ku ne woon trois jours état Sénégal mënu ko téye état Sénégal téye la trois jours ba nga mujj dem tëdd ca clinique bi di xool nan ban stratégie nga mën a am bay wut wàllu pour génn dëkk bi yaakaar ne di nga jot sa passeport pour mën a am après asile Ousmane Sonko état nga séqal état tànk boo teg

di calmer situation de négocier ak ñi nga xamante Ousmane Sonko naan na seen xel mi di leen def ay dof ñuy génn état foofu la toll. prévention bi muy wax nii ñuy jàpp nit ñi même chose ak la muy def taxaw ne suba damay manifester par force gars yi ñëw taxaw buntu kërëm lolu prévention la parce que jappu ñuko ñëwuñu ñu kërëm diko bama ak di buntu xatal diko di mais dañuy prévenir pour bañ muy mu wax wala mu mu mu def yu bon ya mu wax moi tax ñi toog ci réseau yi di bind bind lu bon dañuy ñëw japp la parce que comme bind nga ko même boo amul intention bi sax dan naan yaa ko bind da nga ko war a def dañ lay téye dëkk yëpp noonu la du Sénégal rek ni Ousmane Sonko bàyyi waxu dof yi mu leen di wax ma koy waxaat encore une fois bu ci cent nit doon dee état du taxaw du reculer parce que état de droit dafa am tey bu doon Emile même chose lay doon bu doon Macky Sall même chose lay doon parce que état daf fi nekk pour tous les citoyens lii du politique da nga toog yor ce micro am sa connexion bu doy woo say journaliste bëri wax wax ba wax loo amul lu la ci leer ñu ne la kaay leeral nga ne am nga ko mais yo ko mo gën li yëpp ku ci dee la may wax rek depuis mars 2021 ku ci dee yaa perte ana 14 ya deewoon ana 2 yi ñu rey nan ay Bignona chaque jour ñu fexé Ousmane Sonko fexé ay rebelle dugg Bignona ray ay nit pour pour pour politiser affaire bi de côté de côté régionaliste xool leen tey Guy Marius Sagna Ousmane Sonko fexe na ba mu ànd ak moom jour ba pour ñu ne Guy c'est le héros du jour xool leen Toussaint Manga mi jóge PDS ñu nommé ko il est en train de régionaliser même le le Pastef kan moo fi am tey kàddu pasteur boo xamante ne kàddu kàddoom crédible na amul dem nañ ba xalaat ne Guy Marius Sagna war na woy parce que mooy guerrier xalaat leen bu baax pasteur ba muy jóg xëy na dafa amoon ay discours am mais pasteur toll na ci régionalisation te loolu du mën a avancer bu naree dem foofu dinañ ko dissoudre

lu tax chaque jour day am ay mort c'est parce que dafa bëgg wa sud bi ne waaye ñun nit ñuy ray il faut ñu jóg Ousmane Sonko soulèvement lo loo mënti créer force restera à la loi bi koy wax dafa des années danoo judd fekk ko fi té dañuy dé inshallah baye ko fi ñu avancer ci vidéo alors ñu dem ci benen au hasard. dañu fexé ba duñ leen teel présenter à des juges dañu fexé ba yóbbu leen instruction. yóbbu leen rëbës ñu toog foofu. waaw. problème bi gën a rëy ci Sénégal tey mi ngi ci justice te weesuwul quelques magistrats yoo xam ni saa su réew mi takkee ñoo ko taal waaye nag fitna du yem ci ay bopp borom nit ku taal fitna da nga xam ni fitna gi dina daal sa kaw yow kon ñu ngi masawu ñëpp wax ni stratégie terreur boobu nag andi nañ ko ba hôpital bi ma nekk tey. ndax ci suba ba léegi convoqué nañu waa hôpital bi police di leen laaj question yoo xam ne kenn xamul naka lañ ko mënee laajte nitu hôpital pourquoi Ousmane ko nekk seen hôpital lan la fay def ak wax yoo xam ne kenn xamul lu mu doon mu mel ni léegi crime la Ousmane Sonko tawat am hôpital bu mu dem ñu faj ko comme tous les Sénégalais. alors fitna bi muy wax téere bi muy wax. ñom ñoko ko doon ci banexu mu am ay mort ñu naan gis ngeen mu dem ba andi gatsa gatsa Habib ci après président Macky Sall ah, met affaire muy dem mais Sy fi chaque jour mars 2021. deux mars 2021. mais mars 2023, Sall mars deux plus 2 millions de vues ci doxantu mars 2023 mu doxantuwaat naan ndoxu kokoom kon tey ngeen soog a gis ndoxu kokoom bi Macky Sall def ak ak doxantoom mars 2021 bi ngeen naan ñu ci suufu lal yi ak keroog mars bi bi ngeen naan dafa daw dem Suisse ba nit ñi di leen gëm yéen gisu leen woon seen ay sos mais Macky Sall il s'en fout de Ousmane Sonko Macky Sall il est là pour plus de 17 millions de sénégalais nga ay Ousmane Sonko. Macky Sall c'est un bu nekkul ci rôle président am na droit doxantu naan ndoxu kokoom comme ni Ousmane Sonko toogee nañ këram 14 nit dee. muy bàkku naan gisaguñu dara l'avant ultime ak l'ultime boo leen tolloo ci situation bu bu dafa waraaw nangu leen te muñ affaire bi xoolal comme sport la comme yéen da ngeen ko def xeex jàpp leen ne comme kickboxing la da ngay dóor ñu lay dóor instant yi takk nañ seen loxo takk seen i tànk di leen chifaay ngeen muñ wala ngeen négocier ba génn ci lii li ngeen ciy négocier mooy comme fi Khalifa Sall jëm après dinañ fi ñëw ñu dem ci beneen vidéo rapidement Eh, am na lu ma fàtte mi ngi nan crime la mais crime la nga dem ci clinique feebaroo dara jotu la crime la parce que crime bi famu mu démarré mooy da nga porter malade ci audience juge bi obligé parce que c'était l'ultime renvoi juge bi obligé def renvoi spécial nekata dara dalu la Clédor jóg di dox ay soxlaam Clédor dafa yegg français rek wér xaw ngelaw lee ko ëpp xawma luko lu ko ëpp dafa yegg rek wër am naa fi vidéo boo xamante ne dinaa ko teg après ci clé d'or bu ma ko fàttewulee ñu dem. li xew yépp ci bés ba wax leen gën leen soññ ci taxawaay bi xeex bi na gën a dëgër na gën a taxaw. yàq leen vidéo bi amul benn problème daf leen boo leen mënee daf leen ay bopp Ousmane Sonko. hôpital bi dem sama kër yeggali fa sama. daf leen ay bopp Ousmane Sonko waaye xam leen ni kenn du ma jiitu ci xeex bi lu mu lu mu laaj rek bu soobee yàlla dinañ ko def. xeex bi laajul toog xeexaluñ ko suñu bopp dañ ko. xeex bi laajul toog di créer ay feebar yu amul de xeex bi laajul wéeru ci ay genre xawma ma lii clinique la xaw ma hôtel xeex bi xam nga lu mu laaj nga génn jàkkaarloog policier yi ngay saaga toujours gendarme yi ngay saaga toujours seen général ngay saaga nga jàkkaarlook ñoom defanteeg ñoom Ablaye Wade dafa naan sunu maam ab laay Wade yàlla na ko fi yàlla bàyyi dafa naan xoolal dafa naan lacrymogène ba sonn avant muy nekk président Mamadou Diop de croix a ngi fàttaliku bi ñu koy yanu diko ngoufal taxul mu nek alen de duma lim sax Macky Sall ban ko woy dafa jubali dem tok ñu nangu passeportam mu tok Khalifa Sall dafa dem ba en direct mu tok di joy di reccu 30 millions fausse facture yi Karim wad, dañ ko wo ne ko ci biir mu duggu te ñooñu ñep batay lo xamantene état mënul na négocier ak ñom nak alalu état la won mais li c'est privé Ousmane Sonko et l'état fii la a wonee loi parce que ñëpp a loi nous sommes tous égaux devant la justice Mame Mbaye c'est un sénégalais justiciable comme yow Ousmane Sonko ni nga un sénégalais justiciable Adji Sarr un Sénégalais justiciable comme yow sa soxna say doom ak sa dom boobu nga doon yóbbu nit bëgg yóbbu école wax yeneen domu jàmbur yi nan génn xeex ñi justiciable Bien, gali. ok Je vais continuer. dañ koy xel suñu set ak suñuy setaat bu leen kenn xoqatal bu leen kenn tiital bu leen topp ñi nga xam ne seen intérêt kese kese moo leen tax a jóg ndax liñ leen di jox ñu wër di wax réew mi suñu réew la ñun kon di leen gën a lancé appel boobu di ko lancé coalition bi ma bokk Ousmane Sonko réew mi suñu réew la ñun na ma kenn wax lu Ousmane Sonko mës a defal réew mi booyi kaa leen dee kaa xeex cotiser leen ñaata million ngeen jox Pape Alé ci ay sosam ñaata million ngeen jox Ndeye Khady Ndiaye Sweet Beauté ci ay sosam ñaata million ngeen jox capitaine Touré ci ay sosam te ñooñu ñëpp seen ay sos boo ko booleeg Ousmane Sonko àndeegum na minimum minimum 17 morts du ma wax sax li yàqu ci matériel ci ay nit yoo xamante ne ci leen yoroon seen njaboot

17 boo yooyu dee rek tey 17 nit yi dee rek tey bu buñ ci joxoon ku ci nekk da benn somme pour mu liggéey ndax tey dina kala dee est-ce que tey yokkul jeunes yi pour ñu liggéey Ousmane Sonko bilan am xeex dee fitna point amul leneen à part salon de massage ak ay def yu yu diine tere ak fen yooyu à part ça Ousmane Sonko amul leneen ñu continuer ci coalition bi muy wax coalition bi dinañ ci ñëw buñ ko fàttewulee. di ko lancer l'ensemble des forces vives de la nation. di wax nag ni dafa jot ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci ay xeex nañ fexe ba xeex yooyu ñu dajale ko muy la jonction des forces vives. Ousmane Sonko ñun dañuy xeex de dañuy xeex pour dëkk bi avancé dañuy xeex pour bépp soskat du mën a taxaw sax laa lay wax ni fu ñuy voté bay nekk dara ñun dañuy xeex ñun xoolal dañu judd ci xeex màgg ci xeex mais xeex avec dignité xeex avec honneur xeex avec vérité. xeex boobu boo xam ne ku la ci fekk du am dara lu mu ciy tegg lii ñuy def nii xeex la lii ñuy def nii xeex la fajar 6 heures du matin dañu war a dem sangi gaynde mais li ñuy def nii mooy sunu xeex ñun moom mooy sunu père à l'édifice duñu woo benn jeune pour mu dem xaru lu nu mën a wax jeunes yi moom mooy conscientiser leen ñu xam ne Ousmane Sonko musta wax dëgg on le dit depuis 2016 2017 2018 2019 2020 2021 moom mu commencé len wan ne moom day sos moo taxaw ni musta dem ci salon ba xamul Adji Sarr moo taxaw ni li complot la diw la créé waat yeneen nit moo taxaw créé feebar ne feebarul parce que ñëpp xam na ne feebarul moo taxaw mi ngi wax ne du wax bulletin médical la mais Ousmane Sonko ñëpp tooguñu mu lim fi 52 feebar ku lim 52 feebar war ngaa mën a lim benn feebar parce que benn feebar la soit dañ ma empoisonné wala soit dama asthme wala soit li ma nooy dafa yegg fu mu yegg ci man comme moom mën na fi feebar feebar boo xamante ne d'or bi nga xamante ne moo ñu mag ñun ñëpp wala d'or dafa bokk ci temps wu immortel yi moo tax dara dalu ko moom parce que d'or feebaru la d'or dem na dem na urgence France ma seet vidéo bu ma ko fàttewulee gaaw d'or dem na urgence France dëkk yëpp même Sénégal docteur Babacar ñaa nee na urgentiste la boo dugg ci urgence ki yegg ci ci civière deret di tuuru mom la ñuy ñëk jël ki ci top bu dé dafa am dam dam mom la ñuy jël bu dee deret tuuruwul mu am dam dam mom la ñuy jël ki nga xamantene nak <coughs> amul benn ki bu ko nara ray ni dans 10 minutes dans 20 minutes dans 2 heures de temps dans 3 heures de temps koku mën na fa def sax journée da fay xaar mom moy code blanc dafa am code blanc am code jaune comme code orange code rouge code rouge moy ki nga xamantene urgence la mën ta ñak mom la ñuy ñëk jël da nga yex rek ñu yobul la

maa ngi a une et c'est au moment où il était en Algérie donc euh, dans le correspondance au volume, mais fois, ay parce que donc euh, moi, am ay gars pour que café arrivé ici à 11h10 depuis ce matin nous sommes à l'hôpital Nous sommes pour maintenant nag gis. dengen waji limu wax nous sommes à l'hôpital depuis ce matin bu doon urgence deug la waji bu yexé du amaat du defaat ak dor, dix minutes bay meuna filmer mom moom ba ñu toog soit immortel la motax dara daluko wala Ousmane Sonko moy def mëninam moy sos manipulation ñi may waxal ñep xam na hôpital urgence xam na niveau yek yep ku toog fi di xaar ba ñu lay filmer di wane sa kanam.

moo tax bañ doon. Ousmane Sonko tëgg casserole nga fi def ci beneen xeex. gis nga lim lu jural boobu ba léegi yaa ngi dégringolé. gars yi ñu ay yeneen xeetu xeex gaa yi xeex bi nu tal mooy nu nuy dundee xeex bi nu tal mooy nu nuy avancé xeex bi nu tal mooy nu nuy progressé yow sa xeex moom mooy dem yóbbu benn dossier bu yomb feuille feuille yëkkati feuille comme ni ma yëkkatee nii mouchoir bi nga yëkkati feuille yóbbu ne am lii loolu lañ soxla fii ak le 30 jarul bëre alors ñu dem ci Habib balaa ñu koy fàtte. ne li mu bëgg def empêcher jéem empêcher la candidature de Ousmane Sonko ce n'est c'est impossible jéem ne fi Khalifa Sall do fi nekk candidat c'est impossible Karim Wade c'est impossible s'il le veut. ñàkk jom s'il le veut. taw koku bàyyi la def ministre. parce que c'est ça le peuple moom le bëgg nit da ngay xam sa jamono nit da ngay xam sa jamono. Ousmane Sonko yàlla moo def jamonoom la bu jamonoom ñëwee rek nga nangul ko ko maa ngi koy wax ci meeting bi dama koy laaj ne ko Ousmane waaw yow nii la nit ñi la topp lan la mu ne ma yàlla ma ne ko liñ lay teg ngay résister boobu ba léegi ni mu méttee fooy jëlee doole jooju ngay résister mu ne ma sama yaay jógaat na de il est en pleine forme il va bientôt revenir ñoo ko déggandoo buñ ko ñoo ko déggandoo nee na jogaat na il en pleine forme kon Ousmane Sonko wér na ñëpp dégg nañ ko Habib Sy moo ko wax nee na Ousmane Sonko liñ lay teg xale yi la topp loolu yëpp sax garaawul mais lu gën a garaaw mooy mu naan Karim Wade s'il le veut Khalifa Sall ba léegi du candidat Ousmane Sonko kenn newu ko doo nekk candidat kenn ñëwul force ko moom moo tëb tuumaal ma mbay ñaa ma mbay ñaa porté ko plainte loolu du affaire politique loolu affaire gor ak gor la ma mbay ñaa nee man gor la boo ma andilee kayit ma démissioné ci gouvernement bi dem ñu tëj ma mais Ousmane Sonko gorel fexel 29 milliards yi génn ñun ñep soxla nañ 29 milliards yi état Sénégal soxla na 29 milliards euh, abri provisoire yi buñ ko 29 milliards mën na dindi abri abri provisoire yi wala mu résorber minimum minimum minimum 60% waxuma la sax hôpital buñ ci mën a tabax wala dara kon jàpp ci dool nekkal gor nga fexe papier yi génn foofu rek lañ soxla leen soxla soxla tolluñ feneen yeneen yëpp ay foo débat la bon Habib Sy dama koy andil histoire dama koy andil histoire parce que nit li gën a bon mooy nga bekk bokk fenn mel ne bokkoo fa wala nga bokkoon fenn mel ne mosoo fa bokk ñu dellu ginnaaw tuuti présidentielle demain au Sénégal, l'un des rares pays euh, démocratiques du continent africain. L'opposition part en ordre dispersé pour ces élections en présentant huit candidats, ce qui peut être la chance de l'actuel président Abdou Diouf, qui brigue un troisième mandat pour le Parti socialiste sénégalais. Portrait signé Richard Binet. Lorsque le candidat Diouf une campagne en Casamance, c'est le président Diouf qui vient soutenir. Les enfants ont été sagement regroupés tout au long du parcours. Les militants sont venus par du sentier de Dakar un millier de militaires se sont déployés pour assurer la sécurité du candidat président. Le nommant Premier ministre en 1970, le vieux Sangor avait vu juste. Ce garçon ira loin. Abdou Diouf est alors un jeune technocrate de 35 ans qui joue à ravir son rôle de second homme, modeste, effacé et apparemment sans ambition. Je ne me considère pas comme le dauphin du président Sangor. Et je ne pense pas qu'il y ait de Président Senghor peu, dix ans plus tard, il accède à la présidence. Enfant du sérail, il connaît mieux que quiconque la machine du Parti socialiste au pouvoir depuis l'indépendance. Il évince les barons les plus encombrants et se forge l'image d'un père de famille intègre, capable de conduire le changement. Mais le Sénégal est frappé par la crise et Abdou Diouf reprend le clientélisme de son prédécesseur. Le système un système clientéliste, mais c'est ce même système d'allocation de ressources, cette gestion politique de l'administration, de la promotion administrative qui perdure encore aujourd'hui. Au lendemain de sa réélection en 1988, le président Diouf doit affronter une grave crise sociale. Le redressement économique se fait toujours attendre, l'opposition cherche l'affrontement. Abdou Diouf décrète état d'urgence et emprisonne son rival, Maître Ouad. Mais c'est pour le libérer ensuite et lui offrir plus tard un portefeuille dans son gouvernement. Alors,

mi ngi nii këram. de la résistance. mooy ajouté ki këram naan booy yaa ngi yëngal lii mooy résistance am moom xale yi yeewu leen ñii dañ leen di use dox seen kaw après ñoom ñooy séddoowaat affaire yi wax naa ko fi keroog Ousmane Sonko ñi mu àndal ñii ñëpp bés bu ñu juumoon bu yor nguur gi xam nga ñu fi nekk sax bu ne danoo sàcc ak danoo lekk ñu ngi géex mais ñi ay affame yaa ngi imaginer Cheikh Bara Ndiaye la xawma borom yooku yu metti yoy kooku Ousmane Sonko lu ko mën nomé lu mu andil Sénégal jox xaalis à part ça mënulu dara mënulu ko dara chaque mois mu jox ko xaalis wala diko jox ay marché bu dee ñoom loolu la ñuy kaas bu nu ñëwee pire lañ fiy def parce que ñi ànd ak ñoom ñëpp ku ci nekk business nga def di xaar ba ci sare mi wër ci plateau wër ci plateau yi kooku lan la mën a andil Sénégal lu dul ñu jox ko benn poste xëy na mu remplacer ku mel ne Mahmoud Saleh wala dara et ils feront pire parce que ñii sax am nañ expérience dund nañ ci biir nguur xam na nguur nu muy fonctionner mais ñi dañuy ñëw xoolal di tibb di jiiroo parce que ku leen xool xam ne genre nit ay ay affamé la bu ñuy wax sax xol bu bon la ñuy waxee parce que pour ñoom boo amee t-shirt ñoom amuñu t-shirt sa t-shirt warul baax par force soit dañ koy xotti wala ñu jéem a jël sa t-shirt loolu ñoom noonu la ñuy politiquer mais loolu ban dëkk la mën a avancer ñu dellu ci Habib Sy ñu déglu Habib Sy fii. ci jamono jii ñu ñu toll comme dañoo nekk weeru koor yàlla dana ko may xel mu de si tuuti toogaat xalaat boppam xam ne lii mu bëgg a def empêcher jéem a empêcher la candidature de Ousmane Sonko ce n'est c'est impossible <laughs> jéem ne fi Khalifa Sall dootu fi nekk candidat c'est impossible Je ne ñëpp candidat c'est impossible je le veut

Et je crois que le peuple sénégalais, vraiment avec tous les sacrifices qu'ils consentir, ñoom Khalifa Sall Ousmane Sonko ñu consentir a ne empêcher la candidature d'Ousmane Sonko. ne c'est impossible Il ko ko journaliste vous wax ngeen ciy jaaxle kuy dem ma naan journaliste wax leen ñu dem ci beneen vidéo. manifestation yi am France a violé a ngi dégg. waaw ce que. si nee na France manifestation yi amul sax kenn ku ci ku ci boppam toj wala dara. y a eu plus de deux cent et quelques yu nu arrêté am na ci ay blessé ba am ay policiers yu blessé Habib si mag nga mag day jox boppam cër. bayil yefu xalé yi Ousmane Sonko sosna ba jangal Khalifa sallu sos sosna ba jangal ñeneen ñi mu sos du nyom sax ñom ay maire ñom ay ñom maire ay dëmbooj parce que ñom ñoom sen parcours yëpp ay négociation la and na no Diouf and ak wad and ak maki and ak kune Ousmane Sonko tay ñamu bañ ñep la andal rien que pour baña dem wuy ba mu defé viol ñu jiñ ko viol ci la nyom ak ñom Khalifa sallu ñi mu doon wax ñoy système bi jóge ci ànd ak waa PDS Habib Sy nee na ñoom ñoo gañe assemblée bon ñu teg benn dis benn discours bu ndaw rek. du monde stabilité bi ñu mun a am ba ci ci flux réseau télécom yi munul am feneen kon réew bi ñu am position bi ñu am ba pare ñu amee ko ci anam goo xam ne ca kanam. am nga accès à la mer sur 7, si si sept km. dix huit ak liñ ci mën a def yëpp ci ressources halieutiques ak ci possibilité navigation maritime desservir àdduna yëpp waaye ñu am ci léegi yàlla may ñu ñu gis ci nag lu bëri ci pétrole ak gaz su loolu amuloon sax. ba léegi lu bëri la. nga mën a am ci gannaaw possibilité développer agriculture ndax suñu suuf nangu la te yaatu la am su sol boo xam ne lépp mu nga ci am une population composée majoritairement de jeunes keroog dama dem ambassade Allemagne di waxtaan ak ambassade Allemagne bi mu ne ma li ma mënul comprendre mooy yéen nu ngeen amee population majoritairement jeune et vous ne faites rien de cette jeunesse pour construire votre pays. Ousmane Sonko lan la def pour construire Mais li ma wax rek discours bi nak discours bu ñëk yu Ousmane Sonko yi la bokkatul la garsa garsa yi avant la won avant ay viol avant ay mambay ñaa avant ñëpp di xam ban genre nit la avant discours yi la doon lo nit ñi te discours yi sax mënatul am parce que monde bi légui village planétaire lañ ko tuddee ñu ambassadeur moo ne ko jeunes yi Ousmane Sonko lan la liggéey pour jeunes yi mafia kàcc kàcc léegi nee na leen bu leen kàccati bàyyi leen bàyyi leen réseaux sociaux yi wàññi leen kàcc gi balaa ñu leen di jàpp yooyu la fi créé à part ça créé wul dara pour dee ku ku dee sa yaay réew mi am na stabilité. dégg ngeen réew mi am na stabilité. mooy ñaanuñu ko yàlla yàlla bu mu sax mooy mosuñoo vivre coup d'état léegi bëgg na coup d'état woo na armée am Afrique mosuñu koo am. gis nga ni waa ji changé 360 degré. am ci réew mi defe naa eggagul fu ñu mën a ne guerre am na Sénégal. Casamance la ne parti bu ndaw ci réew mi. ñu am chance bu extraordinaire boo xam ne tey ay nitu politique wala ay nitu système bi parce que suñu nee nitu politique rek bi. ay waaye nitu bi ñoom Khalifa. ñoom Wade. tok ci nguur jaral na len ñu taal senegal moy li ñu mësa am ci valeur suñu matière première bu gëna précieuse moy jàmm ji ñu am digënté sénégalais yépp kon Ousmane Sonko tay suñu matière bi gëna précieuse la bëgg yaax ngeen bëgg ñu négocier ko matière matière ba ci ay pétrole matière ressources naturelles kenn du ko négocier bu démé ba koy euh, bëgg sacc da ngay xeex kon tay état Sénégal dafa tollu ci xeex pour préserver sunu matière précieuse bi Ousmane Sonko wax tey lii discours am la woon ah discours la woon. du ci xeet. mi ngi nii du ci xeet. du tey dugg na ci diine bi dugg na ci yooyu yëpp. soo xoolee Sénégal te loolu dafa jiitu sax diine yi fi nekk ndax bi Sénégalais yi di kalante diggante euh, ethnie ak ethnie bi ñuy kalante diggante sant ak sant. loolu nag doo ko fi dindi doo ko fi dindi da ngay dee bàyyi ko fi. comme moo moo njëkk diine. ci juróom-ñaari at yi weesu gis nañ ni c'est menacé parce que pour la première fois ñu commencé fi tudd ay mbirum ethnie ay mbirum diine te ñi koy tudd ñépp benn motivation la mooy politique. Ousmane Sonko mooy ki njëkk tudd affaire diine euh, affaire ethnie mooy ki ko njëkk tudd moo dem commencé di créer ay waxu ay waxu ethnie naan Casamance dañ ko sacrifier teg naa fi vidéo yi yàggul ci ben live ba muy nek député demoon di casse pour affaire zircon bi di wax bay wax culture Casamance ni ñu ko sacrifié ak yooyu yëpp Sénégal demoon nañ ay jamono ba kuy jóge Casamance di dem di ñew di di dem Dakar wala dem Kaolack da nga naan je vais au pays oo bay dem Casamance naan je vais au pays kon lolu du ci politique la tambalé Macky Sall mi ngi ko bëgg jiiñ limu ci def ci lu positif kenn defu ko ci ndax ñeneen ñëpp dañ doon négocier di joxe ay xaalis ak yooyu moom dafa ñëw fexe ku nekk dellu fa nga amoon sa tool nga bayaat ku nekk dellu fa nga dëkkoon wala village ba sa maam cosaanoo loolu moom mooy un état mais ay négociation ji joxe ay nit ay xaalis ak yooyu pour après ñoo ñu nekk seen zone di di bay seen ay boon di dagg seen ay bant yooyu dafa jeex Sénégal Sénégal bi nga bi ngay wax Ousmane bi ngay jéem a gëmloo ñi ni Ousmane Sonko Sénégal boobu dépassé nañ ko ñu ngi dund leneen ñu ngi bokk lépp di ko xeexandoo référendum bi nga doon kaas def non fa nu defee oui ñun foofu lañ commencé di xeex beneen Sénégal bu gën bin fi bin fi fekk ak bin bin fi bi bi ngeen bëgg ñu bàyyi ko fi foofu lañ toll ñun Sénégal bi ngeen doon dund référendum bi moo moo moo commencé di changer Sénégal boobu tey ku mu neex nga dem porte plainte ci ressources naturelles yi tey ku mu neex nga dem fenn ne lii doxul nii la war a demee mais nag du ku neex nga jóg di sos ba yaakaar na yoon du teg ci yow loxo bu dee dañ la porte plainte ñu yeggali ñàkk pouvoir wala ñu yor pouvoir jox la xaalis boo ñëwee fii Amérique dañu wax père fondateur yi ñi ci ëpp ci ñoom ay chrétien lañu woon ay catholique lañu woon mu amoon ci ay déiste amoon ci ay athée waaye li ci ëpp ci ñoom sax parce que fii ñoom du tabu wala nëbbuwuñu ni bokk naa ci franc-maçonnerie oui, vous ngi claim formation yi pour ñu jox ko xaalis. waaye leen boole woon muy amee ci jamono la nga vous avez coow li la état yi ñii des woon dañuy génn ñii ne dañu génn parce que cette discussion yi doon consensus bi ñu am avez nga a fal président américain, am lu mu sañ am lu mu vous discussion mémoire parce que dañ ko doon bind discussion yu métti la oui c'est les divergence qui dañ koo tegoon pour l'intérêt supérieur de l'Amérique. L'homme loolu moo jot Ousmane Sonko yow miy expliqué de l'Amérique. Senghor premier président du Sénégal chrétien là, dans un pays qui xamante à plus de 94 vingt de musulmans le ñuy expliqué nii yëpp bu un intérêt supérieur moo la ñor waxal booy ñu toog seen kër nga dem wuy wala nga continuer sa sa après victimiser wu dama ñu procès parce que procès bi mënutul delu ginnaw dama lay jox conseil rek sa nga victimiser wu wala nga ñu la jaaral ni nga jaar dem bu intérêt supérieur de la nation parce que la justice fait partie de l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise ou de la nation de tout pays alors yeneen kii ma bëggoon teg sax pour ñu déglu ko fa mu daan waxee ak léegi fa muy waxee ni mu nërmeeloo léegi doo ko dégg mu wax dara lu dul xeex xeex de xeex de xeex dee gat sa gat sa foofu la toll léegi ça veut dire que dafa bëgg sauver powam ku bëgg sauver sa po c'est parce que am nga loo def boo def loon dara da ngay serein may wax na nit ñi ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko dara dalu ko ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko feebarul ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko mësuta wax dëgg kon am na yoo xamante ne nu leen ko dépassé

dégg naa kan lay wax ay xalif si boole xalif si yeeg nee nañu di wax tey la ñuy nangoo wax lu bon ci man yàgg nañu ma doon samay góor ñu ma tànn bañ jàppee seen kilifa na ko ràpp ci biir kaso bi donc je suis à l'aise dëgg bu jotee di ñu ko moomaleel seen bopp te du ñoom rek ñoo nekk Yewwi lu tax rek ñoom ñu bëgg a jël kàddu di ma wax globalement te Yewwi ñëpp nekk fa bëgg ko moomaleel seen bopp la la concerné loolu benn jàngat laa ci def mooy ñoom li ñuy xasee ndaw APR yi jamono yii nekk ci se devenir bu ñu nekkee ci nguur nga critiquer seen leader lu raw wala lu yées lañ fas yéene def man duma ak ñoom parce que man seen leader laay waxal honnêtement dépassé la période où je dois parler avec le peuple seen leader xam na li ma leen wax xam teree def li mu bëgg a def 2019 ba mu gisee ne menace am bu gën a réel pour sa réélection Khalifa Sall la woon kan moo ko tere bu jël Khalifa Sall dugal ko ci ñaari at ku ci mën dara teg dugal na ko ci bi ñaari at ak lu ba ci génne ko ki xam ci dëgg yàlla bàyyi naafeq bi kon ma jàpp ne yéen dans l'opposition vous n'acceptez même pas qu'on formule des critiques ou des pas des de sax des observations par rapport à li rek ngeen jël ñu wax benn wax rek ngeen moomalee ko seen bopp kon yéen boo leen nekkee ci nguur yéen a yées ndawu APR yi yéen i xas ni tey moo tax may wax ne jikko politicien doo ko laata jotul nguur alors eh, papa ale dafa def jangat man damay def jangat ci papa ale dafa ne waye wi dañuy xaar ñu rendi ousmane sonko pour ñu jël affaire yi li dañ papa ale yankor en 2023 mars 2023 ñun février 2021 waxoon nañ ko ni ñuy ànd ñëw ay ñoom buggaan nag gars yi ñëw yëpp di joxantu di seet si Ousmane Sonko ay ñoom Bart yooyu yëpp dañu ñëw ci funérailles politique yu Ousmane Sonko Pape Alé jàngat bi may def mooy que ni fii nga tollu tey wax naa la ko 2017 yàgg naa la wax demoon nga ba bloqué ma ci sa page ma tourné gis nga nga benn jour xaw ma lu ma bind nga ñëw non monsieur Emile Ndiaye xaw ma lan ma ne ah kon débloqué na ma Pape da nga sos sos sos sos da nga sosal xali pour Khalifa Sall pour bañ ñu tëj ko parce que da fa amoon ay intérêt toog naa fii wax ne la fekk naa la 2014 bureau Bamba Fall ma ñëw andi benn projet boo xamante ne dama bëggoon comme temps yooyu Medina dafa amoon ñu naan bi dafa amal bor électricité xaw ma ñaata milliards waa Sénélec ma ñëw di proposer Bamba Fall benn projet sama benn copain bu tudd na bu nekk ci mairie bi moo ma mettre en contact ak Bamba Fall ma ñëw di ko expliquer projet boo xamante ne dama doon fexe marché Tilène jumaa yi nekk foofu yëpp ci Médina bi yëpp ñu teg leen ay panneaux solaires ba nga xamante ne lépp loo xamante ne mairie bi moo ci doon génne xaalisam di ko fay pour électricité ay marché Tilène ak yenn marché yi yenn espace yi ak yenn jumaa yeeg yooyu yëpp mairie bi dootu ko fay. ma ñëw Bamba di ma téema teg di di ma expliquer non expliquer ma naka la ma ne ko man je travaille pas comme ça bàyyiwaat Pape Alé ci bureau bi mu toog ca canapé ba di leesum nekk ku miin bureau bi kon waxuma ay détails li may wax nii ay waxuma ay lu dul dëgg li may wax nii détails yu clair laa ci wax xëy na Bamba Fall tey bu toogee dina réfléchir fàttaliku ne loolu amoon na wala aaroon na ni ma tudd nii moom xam na li may wax parce que moom moo mettre woon le bureau bi ma génn li ko taag mu ne ne ko non mom dafa bëgg ma expliquer ko affaire bi non man je ne travaille pas comme ça parce que xam naa ni muy démé projet ay panneaux solaires yi ci ñiko ñëk andi won Sénégal ci la bok sacc na samay idée yob ko joxé ko mais comme ay nit ki am lumière mu baax alhamdoulillah mais dootuma nangu yenn nit yi di ma dil Pape ala tay bu togué wax né khalifa si ñom dañu momé sen bok wax ji parce que ñom ñoo jóg di casse mais Pape ala lu tax waxul wa Sonko yi don attaquer wa PDS landame binu créer sen ki na ñom duñu voter voté du ñu li lu tax waxul waa Sonko yi nga xamantene boy passé yi nga xamantene ñu ngi saga ñi ñi chaque jour ci ko critiquer pap tu es trop faux et tu mourras faux ñu ngi jéggalu ci cadre yi di wax ñuy fexé don gor bu ñu jital alal gis nga alal dafa and ak lolu tuddu comme garab la da ngay day pour mu am dix problème la ça yu francs CFA fay melne da fa am milliard am ko xamantene bu xeyé bu parce que journée bi neexul moy ay garab da ngay mango mango bi di sax di d'am di am mango bi mais nonu mu saxé am ay fleur lolou moy wërsëg bi nga sa li nga war a téye ci sa wërsëg bu mujj bu matee bu yegsee day mel ne benn xobu garab buy wadd bu laalee teer sa buntu tëju na nga wuy ji sunu borom di ñaanal ñëpp mu yéex te wërsëg yi saawan baawaan mu fekk ñëpp ci li yàlla santaane nekk ci mu nekk loo xamante ne képp boo xamante ne bu lay dal day fekk ku ci nekk ñee lam la fekkee ba sa wërsëg yam fa ba yàlla moom la ñu teg benn vidéo pour jeexal laaya bi alors vidéo bi du affaire politique ci politique lay wax mais ki koy wax du mel Emile Émile fi la bokk wala feulé may fatali ñep man Emile je suis contre un troisième mandat mais deuk dañ koy teg ci yoon yoon moy lan yoon mom moy constitution avant tout kon ces cent personnes là qui se disent intellectuels ci vidéo ci ki Ousmane Sonko yi am na tegul ci lool la ci doon djublu parce que dafa doon wax ni intellectuels yi ñoom ñooy ñi di nan sen xel kon ces intello ces intello là di wax di expliquer nan xamné li du affaire président Macky Sall wala Macky Sall comme personne affaire de privé la nit mon mo mo porte plainte nit nan jël sen esprit intellectuel ñu yóbbu ko ci constitution limu wax ñu yóbbu ko ci code de procédure pénale limu wax ñu yóbbu ko ci loi limu wax buñ ko yóbboo fofu duñu sonn et ces gens qui se disent ay activistes genre yana mar yi nga xamantene ne ñu ngi jéem jog naan ay le 30 ak yooyu bu dee ay gor lan bu dee ay nit lan bu dee duñu ay faussaire ak ay sàcc ak ay truand nan nong au moins une fois ñu ñëw woote dëgg dëgg mooy lan danoo porte plainte nit ñoom yàgg nañ fi porte plainte nit Ousmane Sonko bu ne dafa porte plainte sept plainte amul benn buñ ko ci woo waxul dëgg def na fi plainte 94 milliards boo xamante ne mënul woon nekk kii te daf ci amoon ay intérêt porte na fi plainte ñu woo ci gendarme bu demoon kër yaayam ñëpp gis ne moom moo taxaw kontaan na ci liggéey bi ñaata Adji Sarr waxuloon da koy porter plainte depuis mars 2021 da ngeen gis plainte nanu bàyyi ku ñuy wax lu dul dëgg ñuy ànd ak moom nit da ngay dëggu say waajur yar la ci dëgg nga màgg ci dëgg mais mënoo sax say waajur bu ñu jéngoo ba yar la ci dëgg nga bàyyi fa dëgg di dem ci leneen gis nga nit booy bàyyi dara da ngay dem ci lu gën loolu ci lu mu mënti doon muy ci liggéey muy ci comportement muy ci diine muy ci waxin muy ci fréquentation kon wallaay war na noo xoolaat ñun suñu bopp Bougane waxoon na ko fi bu xaw ma fandalan xaw ma dibi kon tamit looy bàyyi da ngay bàyyi lu bon dem ci li gën mais ñoom ñëpp ay six ak neuf lan amu ci kenn ku ci gën ñoom ñëpp a yees ndax nu wax dëgg bëgguñu dëgg doxuñ ci dëgg te wun askan bi dëgg ñoom ñëpp ñu ngi tëdd ci seen ay ruq di gérer seen ay àdduna di dund nu mu leen neexee ba ci Ousmane Sonko mii tey bu manifestation amee du génne dërëmam parce que xam na ne que ni mi ngi ci mort politique la ngeen ko jot jox ak la mu jot a ak la mu jot a da koy denc pour famille am yéen nag nekk leen ay dof di génn di dee di génn di gaañu di génn di lii moom gaañuwul dafa dem tëdd nu jàpp léegi kon xoolaat leen seen bopp même bu dul dara ngeen seet seen waajur yi ñaata waajur actuellement ñoo sonn di seet seen ay doom yu ñu jàpp ñii police ñii defeere nañ leen ndax benn nit boo xam boo xam ne faalewu leen xamu leen noo leen tudd bu leen jàngi génn leen yàq sama doom na jàngi bu leen jàngi bu leen déglu seeni waajur moom mi ngi fexe ay doomam toog fa mu bëgg di doxal ko mais yéen mu jàppee leen ay ay animaux bu leen ko nangu bu leen ko nangu kun ci jàpp loi bi bees bi si leen lay yóbbu loi bu bees bi jàlloon di wax ci affaire terroriste parce que dem dajji yëfu jàmbur acte terroriste la bu manifestation ça n'a rien à voir ak sàcc tout court dañ lay jugé ci acte terroriste ba pare soog la jugé ci nga parce que boo bu acte terroriste amul dem di parce que ñit ñi bàyyi ba ñi di di

Ousmane Sonko mo woote moo tax acte bi am parce que mo taxaw génn wote les vidéos sont là bokul ak ay El Malik bu wax ba paré dem ba team police di daw deuxième ay tapet lan ay yambar lan yeen nag guerrier guerrier lu len ba nu japp len tëj len yene perte ñun on parle par expérience ñun fekk na ñuy génn di jënd mburu fajar ñu ñu trip yóbbu ñu grève du am grève day am talan ñu talan yu bax té ñu fa ba 22h bayu ñu dox temps pour nga dox ko Colobane bi rek da ngay dox di tari ay sar na fofu yop ay bandi la bay ba 22h ñu génn ñu joxaat ñu suñu 300 et quelques ñu kii waat delloo delloowaat wañu suñu ceinture ñu ñu ñu daal di takkaat suñu fayefoon bu weex ba ñu solo ndax affaire grève rek kon on vous parle par expérience te légui affaire dafa gën a tar parce que légui affaire terrorisme la du ay affaire ay grève ak ay enseignants yëpp di ci jéem grève ku ci grève bay leen ko mu grève bu wër bi dé on on tire ça à la source ku ci dof dof lu on le rajie parce que école lepp la sauf confession religieuse sauf confession politique ay enseignants yu toog ci classe di wax ay nit ñi lu dul dëgg booy seen booy seen doom yi xoolal daam booy tubaab bu normal sax mënuñu ko làkk jàngaluñu booy di leen wax naka sadul noonu di leen wax lu dul dëgg ci réew mi ñu seet vidéo balaa ñuy gën a tàng sax ci kon laay parce que ñuy vraiment dañ c'est écœurant quoi c'est écœurant franchement et c'est désolant alors ñu seet las vidéo bi ñu teg ko tëjee ko alors lii benn revue de presse la bu amoon fan yi na mu ko daggoon pour nous déglu nous après nous tango. de vider le dossier les dégâts collatéraux sont énormes des magasins saccagés des bus débris brûlés de même que les stations d'essence enflammées ce procès est synonyme de perte colossale et de manque à gagner. Mais c'est quoi avec, ce, avec une situation où les gens prennent à joindre les deux bouts. Et c'est à ce moment qu'on demande à certains de rester chez eux. Parce qu'ils ont perdu leur emploi. Le chauffeur de bus Dakar de là, donc il va faire comment technique. Hmm? Comment sa famille fera Chemin technique. Celui qui était au niveau de la station, qui gagnait un peu, un peu, donnait un peu, comment il va faire Voilà la situation. Vous avez cette attitude. En tout état de cause, le renvoi, de renvoi en renvoi, les Sénégalais exigent que ce dossier encombrant soit jugé et le verdict rendu. Mais juge, un jugement, juger. Mais un procès, pourquoi le, <laughs> un procès fii leen koy tëjee wax bi leer un jugement un procès tout court Quand kon ñoom un peuple bi ñuy wax ñoom Habib Sy nañ xam ne am na beneen peuple bu taxaw jàkkaarloo ak ñoom pour bëgg procès rek procès moom mooy li justice di def parce que plainte procès moo koy régler. ñu ngi jéggaluwaat ci kàddu yi di ñaanal ñëpp jàmm tey duñu dugg ci côté politique pour wax ay ñu doon wax ne Macky Sall mënul feesal stade ñun fekkee nañ stade de l'amitié Macky Sall feesal ko ci meeting meeting de clôture amuñu temps wax yenn détails parce que amna naa ne ay waxu dof la footballu Sénégal buñ ko politiser parce que Sadio Mané bu vote jotee kenn xamul comme muy voté mais bu woote jotee pour équipe nationale day ñëw sol maillot bi Iliman Ndiaye xëy na sax bokkul ci liste ñi nga xamante ne dañu war a voté parce que xëy na binduwul te pourtant bu équipe bi wootee day ñëw taxaw football kon nañu jël sport bi ñu bañ ko yóbbu ci yenn niveau yi ak ku ci nekk nag am nga droit ne euh, politique sportive Macky Sall moo tax ñu am coupe wala moo ñi c'est vrai mais bu ñu duggee pour football nanu baye gaay ñu football nak bu defet amé ñu né politique sportive Macky Sall moo tax defet am mais bu ñu jël équipe bi di ci duggal ay violeurs ak ay troisième mandat ak parce que ken tolloogul fofu fi ñu toll moy bu gaay di football nañ fexe ñu gagner parce que Sénégal la ñuy dem représenter Macky jeexal 2024 warul tax Sadio Mané ñoom Elimane Ndiaye ñom euh, Koulibaly ñëpp war a xappi football war a défendre suñu équipe Macky équipe bi day continuer Macky Sall yam équipe bi continuer parce que c'est le Sénégal ces jeunes ces gens représentent le Sénégal kon nu ñuy dem di représenter Sénégal di leen ci jàppale. di wax ne nag Aliou Cissé war na jël retraite ñu ngi jégaluwaat ci kàddu yi di ñëpp jàmm di ñaan kooru jàmm di leen wax avant vendredi prochain incha dans les 22 de le Sénégal dans nos veines